asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo di am contentement ak mbégte janoog yéen chaque jour ngeen indi leen li gën a fas ci boobu xibaar yi ci nuyoo bi nag dama ci jiital comme toujours sama DG borom kër gi di Pape Thialé Sow di ko ñaanal jàmm ju bari bari Mbaye nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay wante maa ngi nuyu bu baax a baax euh, ñëpp ñuy liggéey fii ci Leewtoo TV comme ni nga ko waxee da ci jiital Pape Thialis Faye suñu DG di jaajëfal mbokk internet yëpp ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam di nuyu waa Diourbel sama dëkk. di leen bu baax a baax. Ndeye Mbacke di la fay di nuyu Babacar amaan mbégte jàkkaarloog internetu Leewtoo TV yi pour indi leen li gën a fas ci yéen kaay yi. mu ngi nag moo di may seen revue de l'arène chaque jour mbay huile j'adore waaw waaw tey euh, xam nga huile j'adore nag tey célibataire yi laay laa laay laay laay wax ñu jàppanteeg huile j'adore xam na ñoom dañoo bëgg ay sur le plat bëgg ay omelette affaire yooyu nga xamante ne bii dafa noppale bii moo ci gaaw waaw jàppante la jàppante leen ak huile j'adore waaw mu ngi noonu mu ngi noonu jeudi 18 mars mu xëyee ci xëtam mu mu ne Modou Lo va battre Ama Baldé ah Assane xarim Gaye da day wax loolu moom yëkkati na kàddoom ci biir journal bi daal xam ne ne incha allah bu ci yàlla àndee eh, kii di Modou bu jàppee eh, eh, Ama Baldé dina ko daan li waral loolu mooy Modou dafa xiif fi mu toll nii victoire te waa Parcelles dañ koy yónni te mayuñu ko dara. dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee noonu la xarim Gaye ga hausse de ton maanaam xarim Gaye ga. yëkkati na kàddoom dóor ci taabu ji nee na nag Modou Lo va battre Ama Baldé moom nee na loolu la gëm te loolu mooy am nee ndax Modou Lo dafa xiif wala dafa mar victoire waaye loolu nag euh, mënuñu ko mënuñu ko gëm ndax euh, Modou Lo ci victoire la jógee mais ba léegi mu euh, teg ci ne ñoom combat bi yàgg na te mënatuñu xaar il faut que saison bi ñu bëre ko nee na nag Luc Nicolaï mu ngi ci dernier réglage yi combat boobu foo mu am ci année bi moom noonu la ñëpp a ko yàqam déedéeloo combat royal boobu dox ci diggante Modou Lo ak ki nga mooy Sële bu ndaw bi noonu la ñu demee raison fiasco de son combat contre Sa Thiès nga xamante ne nii mooy a Diagne mu ne Garga Mbossé a exigé 30 millions. Gaston Mbengue par contre a proposé 25 millions mu mel ne loolu tax combat bi taxawul ci diggante ñaari xale yooyu. moo yëkkati yooyu la kàddu moom mi nga xamante ne bii ku jege Garga Mbossé la ñëw na ci li nga xamante ne moo tax combat Sa Thiès ak Garga taxawul yaakaar naa lépp ci affaire u la woon ñàkk a déggoo ak promoteur bi la. dëgg la may Babacar ni comme ni nga ko waxee noonu la ginnaaw ba Gaston Mbengue taxawalee combat euh, Sa Thiès ak euh, Moussa Ndoye ñëpp dañ doon wax ne combat euh, Garga Mbossé ak Sa Thiès moom moo gënoon a opportun léegi nag suñu làmb dem jox kàddu kii di agent euh, Garga Mbossé muy euh, a Diagne moom nag li wax nee ne problème mu prix moo tax combat bu ko boobu am nee ne Gaston Mbengue vingt cinq millions la proposé alors que Garga moom trente million la bëggoon nee ne au départ Gaston Mbengue d'accordoon nag ñoom ci vingt cinq millions mais après moom agent bi dafa woo Garga Mbossé Garga Mbossé ne ko combat Sa Thiès day nécessité préparation bu baax donc 30 millions lay laaj nee na cinq millions yooyu sax la ko Papial fayoon au départ te d' accord nan mais finalement daal Garga moom moo préféré wax ne 30 millions si lay bëree sinon du accepter combat bi. kon daal 5 millions moo doxoon digganteem ak promoteur yi. 5 millions moo dox moo tax mu ñàkk combat boobu te loolu sax euh, moo tax. Euh, agent bi teg ci ne Garga Mbossé euh, saison blanche am dina dina dina yomb ren mu def ko ndax euh, de pour mu amaat beneen adversaire di yomb ah, ah. waaye nag nee na Garga dafa xaw a découragé ci làmb te li mu fas yéene essence yi moom mooy arrêté combat am nee na mi ngi Amérique am na fa benn job boo xam ne nii mën na ko permettre muy gagné vie am normalement ba essence bi daal bàyyi làmb la gën a jege ko pour poursuivre carrière am. ma nga noonu drapeau na fi Fallou Fall pour le 28 mars incha allah Mbaye Babacar. mu mel ni combat boobu la incha allah jàpp nañu date ba le 28 mars incha allah bu ci yàlla àndee Boy Meleex ak euh, Bay 52 junior moo war a nekk drapeau Nafi Falilou Fall di ko nga xamante ne bii ku ñëpp euh, bàyyi xel la. dëgg la Baye Babacar euh, combat boobu Serigne Modou Niang moo ko tëgg mu war a dox ci diggante booy Melax ak B52 Junior loolu nag vingt 28 mars lay amee mu nekk combat boo xam ne nii moo war a ubbi saison bi. mu nekk nag combat boo xam ne nii combat bu nar a neex lay doon ndax dafa war a dajeek booy Melax mi nga xam ne nii doomu Mohamed Ali la war a jaar ci tànk papaam. Euh, ak euh, booy euh, B52 mi nga xam ne nii moom day alterner la bon et le moins bon ça maanaam bu amee victoire tey suba defet lay am. day daanu daanu. waaw daan daanu wala daanu daan combat bu nar a neex la doon ñaari jeunes yoo xam ne nii am nan am nan yaakaar si ñoom ci làmb ji. ma nga noonu ba léegi ci yeneen combat yi nar a neex Tigre Junior ak Boy Jaxaw Adama Sané retient. le 11 avril incha allah. jeune promoteur bi di Adama Sané di borom euh, jam jamtan production. Mhm. Euh, moom tamit euh, jàpp na jàpp na datam. incha allah bu ci yàlla àndee le 11 avril. Mansour Loiré la jàpp datam incha allah foofu ci arène nationale mu war a tëgg ki nga xamante ne moom mooy Tigre Junior ak Boy Diakha. dëgg la Mbaye Babacar Tigre Junior Boy Diakha. Adama Sané le 11 avril. Euh, journal suñu laam nag nee benn duel de feu et une un duel pour la confirmation lu tax mu wax loolu mooy Tigre Junior dafa jógee ci ay victoire daan na Jordan bu Songaan Gueye le 26 euh, novembre 2017 waaye daan na également Wak Ndaw le 28 juillet 2018 Boy Jaxaaw moom dernier combat am daf ko daane contre Baye Ndiaye le 21 juillet 2019 donc ñoom ñaar ñëpp ci victoire lañ jógee loolu tax journal suñu laam nee ne euh, la war a xoolaat sa bopp. ku nekk ci combat nga victoire nga jógee donc da nga ci war a tegaat beneen victoire pour que nga mën a continuer sa carrière normalement. kon ñu mën a xaar combat bu neex. combat bu neex la entre Tigre Junior ak Boy Diakhao. incha allah. moo noonu saison 2020 2021 vers une des arbitres mu mel ni la arbitre ni ngi jamaat ci saison ba nga xamante ne bii dàquñu amalaat ci grève bi ñu jógee woon gannaaw ba nga xamante ne bii ñu ngi ci ay waxtaan. ak waa CNG mel ni Assane ba léegi ñoom déggoo bu ñu ak waa CNG ba léegi. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la ginnaaw bi nga ko xamee daaw euh, arbitre yi dañoo defoon grève grève bu métti sax ban am fi ay radiation ak ay sanctions yu méttee métti loolu nag après bi Birane Sèye Birane Sèye ñëwee dafa dindi sanction yëpp radiation yëpp mu dindi ko ñëpp nekkaat ci biir CNG bi waaye démb da leen a dalal ñuy waxtaan euh, arbitre yi lu ñuy kaas mooy que seen condition de vie dans l'arène ñu gën a mu gën a am mu gën a ñoŋ mu gën a am importance. léegi nag ñu ngi ci discussion yi waaye déggeegul tey nag war na nañu dajawaat journal suñu laa mu nee ne la réunion de dernier sens tey lay am tey daal lan war a déggoo wala affaire yi métti lool tey en tout cas nañu waxtaan rek déggoo ndax loolu mooy njëriñu làmb CNG nañu def dara arbitre tamit bàyyi dara ñu daje ngir solution mën a am dëgg la waxtaan si lay solution di jógee il faut que ñu waxtaan pour que ñu trouver benn solution pour que euh, saison bi war a démarrer finalement le 21 juin le 21 mars bi di ñëw avec gala bi nga xam ne nii Jaks moo ko war a organiser il faut que ñu dégloo ñu déggoo pour que arbitre yi mën ko siffler. mu ngi noonu lu simple lañ jëm à Joal le 27 ak le 28 mars incha allah kooku tëgg nag di Pape Thialis Faye. ak Leewtoo production lam ca teg nag mooy mise un million cinq cent Mbaye Babacar. Leewtoo production ma nga jëm fële ca Joal di dëkku ni euh, yax Yékini Yaxya Diop ni incha allah le 27 ak le 28 mars euh, Leewtoo production moo taxawal boobu la gala de mu war a am nag asam ñaari fan ñu teg ci un million cinq cent mu mel ni mbër yi ñu ngi waajal bu baax a baax. dëgg la Mbaye Babacar Pape Thialis Faye moo def loolu euh, war a dem ci Joal tëgg fa benn grand gala de lutte gala bi nag mi ngi am di vingt sept au vingt huit mars samedi vingt sept lay commencé jeex dimanche vingt huit mars mise bu nag mi ngi nekk ci un million cinq cent Euh, vingt 27 moom mooy tournoi pois léger yi avec une mise de 500 milles dimanche bi moom mooy tournoi euh, pois lourd yi avec une mise de 1 million ñu fàttali nekk euh, tournoi bi wala gala boobu ki ñu ko marraine moom mooy le ministre Aïssatou Sophie Gladima moom mooy ministre du pétrole et des énergies ñu fàttali également que Ndeye faatu Adama Diallo ak Diab Diagne ñoom ñooy animé gala boobu. ñu nar a gis ambiance bu neex ndax ñoom ñaar dañoo déggoo kii dafa man a woy kii dafa mën a tëgg. ambiance dina am lépp dina am bëre dina am fecc dina am bàkku lépp di ku fa dikk di nga fa fekk di nga ko fa eh, seetaan incha allah. incha allah. mu ngi noonu ba léegi lu simple la ñuy desandi mise de 2 millions 500 ki nga à à terrain gaal gi ki nga xamante ne mooy jag sa confirme son gala ce dimanche 21 mars production moom dëggal na gala bi nga xamante ne bii moom la war a amal dimanche le 21 mars foofu ci terrain gaal gi mu mel ni moom euh, Pape Thialis bu demee fële ca Joal moom terrain gaal gi la taamu mu tegal mbër yi nag ñaari millions ak genn wàll. dëgg la Mbaye Babacar mise de 2 millions 500 mille à gaal gi. Jax confirme son gala de ce dimanche 21 euh, mars noonu la ko journal suñu mu waxee waaye nag Jax euh, euh, temps il est passé dafa defoon benn condition pour mu mën a amal galaam bi dafa waxoon ne pour que mu tëgg il faut que CNG accepte mbër yi bëree seen licence daaw. waaye daf ci woo Bira Sène waxtaan ceeg moom Bira Sène ne ko loolu daal mënul nekk il faut que euh, mbër yi renouveler seen licence pour ñu mën leen a permettre ñu bëree leen jax si leen ne garaawul léegi malgré ça moom dina tëgg la dimanche bii di ñëw 21 mars 2021 incha allah incha allah kon mu leer noonu mbëri yi licence yu bees la ñuy bëree licence yu bees la ñuy bëree moo tax euh, yu daaw yi jeex na yu ren yi la ñuy bëree il faut que nit ñu mbër yi également dem euh, inscrire am seen licence licence yi seerul 3000 rek lay jar su ma ñu mën a bëree normalement euh, gagné seen vie. ci mais mais mais loolu tamit Assane war na leer ci bopp mbër yi parce que mbër yi mën nañ jàpp ne licence daaw la ñuy bëree préparé xam nga yi fi na mbër yu jógee ci dëkku àll yi préparé wu ñëw ba Dakar ñu ne bu bees ngay bëree loolu tamit dafa metti information bi war na jàll bu baax a baax mbër yi xam ne ku amul licence bu bees jarul sax ngay déplacé wu. dëgg la comme loolu seen métier également war waruñu dem vers l' information. bu saison ubbee yow en tant que mbër war nga dem. Euh, laajte euh, lan mooy condition yu ni bëree ren nga mën ci tënk pour que boo dikkee ci làmb dun la aaye nga mën a inscrire normalement bëree euh, daq sa sens ci biir galaay yi. am na solo noonu bëri dem renouveler li nga xam te ne mooy seen licence seerul installation du nouveau bureau du nouveau CRG de lutte de Kaolack Bira Sène passe le témoin à Mamkor Faye ce jeudi. mu mel ni ñoom ñaar Bira Sène moom bi nga xamante ne bii moom moo nekkoon président CNG bu Kaolack te jógee fa léegi ñu tàbb ko président CNG mu jiite làmb ji ci Sénégal euh, ba mu fa jógee nag ki muy ki mu ki muy fas yéene jokkalante lenge yi kooku mooy Mame Gor Faye mu mel ni loolu tey jii la war a am foofu ci Kaolack ndangaan dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee noonu la Mame Gor fay ginnaaw bi ñu ko falee ci bopp CRG bu Kaolack euh, weer yële jàll tey nag lañ koy installé tey lay def passation de service moom ak Birasène Birasène moom moo fa nekkoon moom la wutu ci CRG boobu léegi ne journal suñu la nee na cérémonie de passation de service boobu tey jii lay am di jeudi à partir de 10 heures ki koy teewee ku koy présider nag maanaam ki koy jiite moom mooy gouverneur bu Kaolack mu tudd ba dara Mbeng waaye également inspecteur régional des sports di Pape Samba li dina ko teewee. moo noonu Forza mooy war a ki nga xam te ni mooy Pakala les ménagers ont récupéré les chèques. mbay mu mel ni yëpp leer na. ah waaw ah, aaya ba daanu na de. maanaam si jot nañ ca xaalis ba de. te mbër nag heure bu nekkee avance dana bëre mbaa mu fanaan suufu po mu ngi noonu mu mel ni euh, promoteur kii euh, ménager yi jot nañ li nga xamante ne bii moom mooy avance mbër yi yaakaar naa mbër yi tamit jot nañ ca xaalis ba. Pakala ak Forza. dëgg la Mbaye Babacar comme li nga ko waxee aaya ba daan na ginnaaw bi ko Gaston Mbengue annoncé bërki démb bërki démb démb sax bërki démb la na combat Forza ak euh, Pakala. démb nag woo na managers yi mbër yi pour jox leen seen check woo na Khalifa Diagne moom moo fa teewaloon Forza euh, Mbaye Diagne di manageru la ñoo ñëpp daje nañ démb ci kër Gaston bi nekk Maris ñu jox jot seen chèque instant yi daal combat bi taxaw na officiellement. ku ci nekk jot nga sa xaalis. ku nekk jot nga sa xaalis instant yi moom yaa ngi ndaataan ndaataan dallax. bu ko ndaataan dallax boobu mu ngi noonu ca la ñuy jeexalee nag mooy l'association de PAF. ki nga xam te ne Pape Abdou Fall moo ko jiite débloque 4 millions 800 pour les licences bay. waaw mu ngi noonu association promoteurs yi ñoom génnoon nañu lu toll ak ñeenti millions ak téeméeri junne ak juróom-benn fukk. ngir ñoom promoteurs yi ñu mën a am ay licence su bees ñoom tamit mën a mën a taxawal seen journée mën a tëgg seen i làmb ni ko comme ni mu waree mbër yi yaakaar naa tamit noonu la waree noonu la waree promoteurs yi te ñoom yaakaar naa ñu ngi ci yoon bi génn nañ xaalis ngir am ay licence su bees. dëgg la Mbaye Babacar association nationale des promoteurs de lutte du Sénégal ñoo def loolu nga xam ne Pape euh, Abdou Fall moo ko jiite ñoom dañoo génnee 4 millions 800 mille jëndal 16 promoteurs yi nga xam ne nii composé association boobu. waaye nag li ci li ci xaw a ñuul mooy que ne boo dundee boo génnee 4 millions 800 mille jagleel ko 16. Euh, 16 euh, euh, promoteurs maanaam que ne licence bu nekk 300 mille leen ndikkee seulement Bira Sène bi mu ndikkee dafa baissé licence yi jëlee ko ci 300 mille yóbbu ko ci 200 mille alors que boo defee calcul bi 4 millions 800 mille yi divisé ko par 16 300 mille la la leen ndikkee donc war nañu expliquer seen licence waaw su fekkee wàññi nañ ko su fekkee jëlee nañ ko ci 300000 andi ko ci 200000 moom loolu mën na nekk tawféex ci euh, promoteurs yi mais comme noonu nga ko waxee buñ ko diviser mu nekk 300000 tamit mu mel ne leer leerul ba léegi. waaw leerul des na il faut que ñu expliquer ñu soit 16 euh, promoteurs yi lañ ko euh, lañ ko jox. wala voilà, euh, plus de seize promoteurs ñoom lañ jagleel quatre millions huit cent millions huit cent mille mu ngi noonu dañ am lu gën a leer incha allah loolu moo nekkoon li gën a fës si boobu xibaar yi mbay lay tàggatoo yi xanaa ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm wante di jaajëfal suñu mbokku internet yépp ñuy topp ci Leewtoo TV di leen wax gën leen a abonné page bi ndax lépp loo leen soxla ci wàllu làmb fii kese la 100 pour làmb la ñuy def. Assane Waal. Ndeye Mbacke di la remercier comme ni ko euh, Babacar waxee rek. Euh, euh, nit ñi ñu ngi abonné ñu ngi ñu ngi gis ni ñuy ni ñuy ni ñu toppee site bi macha allah instant yi moom ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax comme d'habitude di remercier waa <laughs> waa Linguère Yacine Fall Fama Mansour ak équipe bu Leewtoo TV yëpp jërë ngeen ba a xam man <laughs> ah mu ngi noonu naan di leen jaajëfal bu jàpp suñu fukki loxo daal lay nuyu ci nuyu gi na sell ci noonu nag damay daal daaw rek tàggatoo yéen ba suba ak jàmm incha allah ci beneen revue